lii xew Sénégal fi mu nii wallahi sabab bi ñëpp xam nañ ko wallahi laazim sabab bi ñëpp xam ñu wax ko ak ñàkk ko wax ñëpp xam nañ ko panel yi rek panel yi nii rek daf ci feeñ parce que dafa am loo xamante ne bi tey en tant que man même su fekkee man ànduma ak président Macky Sall ci politique am ànduma ak am na loo xam ne man yoon mayuma ko pour ma wax ko président Macky Sall wala yoon mayuma ko pour ma di ko wax ci réew loolu man su ma ko xamee nekk di góor góorgóorlu pour moytu loolu mais damay ñëw ci panel bi wax sama xalaat wax sama gis-gis kenn koo xam ne dafay défendre président Macky Sall ñëw attaqué wu man man na ma xas man na ma saaga man na sax xas sama waajur wala mu saaga wala mu xas sama leader wala mu saaga te léegi ñi nga xam ne ñu ngi ci groupe nekk ay responsable xam yoon faral président Macky Sall duñ ko recadré mu dañ koy bàyyi mu continuer ci loolu amaana sax ñu koy pousse pour mu continuer ci loolu loolu tegul fenn ci bakkan rek la teg ci bakkan la parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko kii défendre président Macky Sall ak kii défendre président Macky Sall ñëpp ñoo bokk yéen ci réew kenn waru ci jalgati yoon kenn ku nekk da war a jaar ci yoon am réew nag soo ko jiitee ànd ak ay nit ngir jàppale ne ci li ñu ko jiitee ngir li la askan wi sant ak li ñu yaakaar ci yow nga def yow da nga war a yemale ñëpp xam ne ñëpp yaay seen kilifa ñi nga àndal dañu war a yemale ñëpp xam ne ñëpp bokk yéen ci réew kenn ku nekk ñu bàyyi la ak ci dam su boobaa koo xam ne da ngaa jàdd yoon yoon buy def ci yow li ci war ñëpp dañuy kontaan mais gis nga réew mi saa boo paree fii lu la neex nga wax même panel yi lu la neex nga wax lu la neex nga def ku la neex nga xas ku la neex nga saaga ku la neex nga toroxal ba pare bëgg ne dara du la ci fekk léegi nag keneen bu ko waxee dara mën na bu fekk waaye ñu leen di déglu leen gis du leen mën a nekk ci àdduna parce que dëgg dëgg rek lay mën a doon coow li mu bëri bëri wax ji lu mu bëri bëri bëri wallahi lazim Sénégal yi ci bëri bëri bëri bëri dañuy par parloo li ñu wax teguñ ko fenn lu may seen bakkan ak diwoo ma neex diw ñëw kese yàlla tere na ko